dund ak li tax borom bi jël ko def ko turam dafa rëy parce que kenn waru ko dendale kenn hal taalamu lahu samiya borom bi waxoon na ko rasul salaa salaam te da ko neen jaamu ma nga muñ ci jaamu gi man maay borom asamaan maay borom suuf est-ce que xamal nga ma turandoo turandoo cest à ku ñu koo xam ne war nañu ko defal li ñu may defal ndax turam gi mu yor muy allah amul parce que allah ku ko tuddoo rek mooy da nga mérité ñu jaamu la kenn du ko tuddee nit musiba la kooku sax yàlla baax rek li naan yàllaa njaboote ba mu yëkkati bu fekkoon ba muy wàccee yàlla mënoon na ko faa yóbbu yàlla baax yàlla ko yàlla guddal fanam bi mu xippi xam ne kenn du tuddee nit tur woowu même tur yi ñuy tuddee nit ñun la Abdourahman Abdoulatif Abdoulaziz bëgguñu sax ngay wax nit ci Aziz nga noppi wala nga ne ko Latif nga noppi wala ko Rahman nga noppi danga naan abd nga doog ci teg Latif kenn du tuddee nit Rahman déedéet. abdourahman abdoulatif ngir respect waxuma allah moom kenn waxatu ko kon mbokk loolu lañuy bàyyi ci xel ci tawhid bokkaale nag bari na ci pénc mi nga xam ne daa bëri façon démb xamba yaa ngi fi woon jeexagul sa mbokk lébu yi foofu laa bokk ñu mën naa ci wax ndeysaan xamba yaa ngoog xëy sotti ci sow xëy rendi ci ginaar démb am na ñoo xam ne dañu daan xëy balaa ñu génn seen buntu kër yi sotti ndox ci buntu kër bi naan ndox mi da leen di aar ndox bu doon aar nit yaakaar naa kër du inondé taw du yàqal kenn ñu bàyyi xel li sa wet yàlla bind ko mënula aar yàlla moo lay aar nga bàyyi ci xel yàlla moo ñuy sàmm loolu boo ko gëmee rek nga jox sa bopp borom bi subhaanahu wa taala nga yaakaar ko ragal ko dëkk solo ko yoont bi joxoon nañu ay ñaan yoo xam ne saa wu ñuy génn kër ga dañ koy def ngir yàlla musal ñu ci li nga xam ne moom la ñuy dox ba ñëw fekkaat fi jàmm kon taw xiit boobu bor mi daa bëggoon ñu faatuwaale ak moom wala na illaa wa antum muslimoon yàlla nee na bu leen ñëw ci man mukk lu dul ngeen nekk ñu jébbal seen bopp seen borom kon aaya boobu nañ ci bàyyi xel bu baax borom bi duñu wax ne bu ñu faatu mukk ñëw ci moom ndare dañoo jébbal suñu bopp moom borom bi subhanahu wa ñuy jébbal ko suñu bopp al islaam foofu la jóge istislaam mooy nga jébbal lépp sa borom subhanahu wa doo ko booleeg kenn ci jébal bi ngay jébbal sa borom boobu doo ko booleeg lenn kon loolu mooy tawxiit nga jox sa borom sa bopp nga nangul ko lépp nga xam ne moom mooy sa borom ci jaamu ci dégg ci ragal bañ ko bokk kenn kon loolu dafay am solo lool ñu jàngat ko ndax borom bi moo ñu aartu nañu bu leen ñëw ci man mukk nag te ñëw leen nekk almuslimuun wala almuslimiin kon loolu moo ñu wan ñu ak tawxiid alxaalis benn wuute goo xam ne benn benn benn benn euh, wéetal yàlla goo xam ne laa bëgg a wax nga xam ne dafay sell te du ci am benn rax moo tax quran di ñu wax ne illa man atallaha bi qalbin salim gis nga illa man atallaha bi qalbin salim kon ñi ñëw suba ak xol goo xam ne raxul bokkaale ñoom ñooy sauvé suba incha qalbun salim mu ngoog amul bokkaale yàlla mën ngaa ñëw bàkkaar bu ne mu man laa jéggal su ko neexee yàlla su ko neexoon sax na ko góor ga waxoon su ko neexee sax mu fay safara su ko neexee mais comme wax na jaam yi laa am laa am na jahannama min al jinnati wa naasi ajmain lu mu wax la mais comme faw safara fees te la koy feesal mooy ay nit ak ay jinne te la leen di gën yóbbu mooy bokkaale kon su ko defee yenn bàkkaari bor mën na ko baale kon ñu bàyyi ci xel mu nekkoon yoonu gaa ñu baax ña saxaaba ya ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ñëwoon ba nekk suñu kilifa yi démb fii sax bu ngeen toppee seen mbind di ngeen xam ne dañoo ragaloon bokkaal yàlla seddoon ko ci sëriñ si fi nekkoon yépp nag sëriñ si fi nekkoon yépp seet leen leen ñu nekkoon ñoo xam ne ci suñ na lañu tegoon seen tànk di wéetal borom bi feeñ ci seen mbind feeñ ci seen waxtaan ak seen njaboot ba tax na loolu nañ ko bàyyi xel duma jeexal mu nag ndare fi ma tuddee suñu nit ñu baax ñooñu dafay mel ni am na ay yuy yëngatu sax dem ca wàll woo ma bëgg ko tëje waxtaan yi parce que ci côté boobu sax laa bëgg ñu waxtaan yi ñu bëri tey ñàkk xam ñooñu jiitu woon tax na ñu teg leen sax ne dañu jàpp ne ñoom xëy na nekkuñu woon ci wéetal yàlla misaal xëy na li ko waral dinaa ci ñëw ba tax na léegoo léeg nga dégg ci réew mi ñu nekk ay nit ñoo xam ne dañuy song nit ñu baax ñooñu song leen xëy na li koy waral dinañ ci ñëw ñaari mbir ma bëgg ñu dégg ko ci waxtaan wi mooy nañu bàyyi xel suñu nit ñu baax ñoo ñu nekkoon fii démb ñu tuddee leen ay sëriñ ñu tegoon seen tànk ci sunna rasul la ku leen jàngal dinga ko xam ku jàng seen bind di ko xam laa bëgg wax ku leen liiral di ko xam bu ñu demee direct nag ci li ñu bind dinañu noppalu beneen mbir tamit ma dénkaat ko ñi nga xam ne ñoo wuutu ñooñu tey ñooñu ñoo wuutu ñooñu ñoo mën a ñoŋal liggéeyu ñooñu ñoo ko mën a teg ci yoon te bu ñu bàyyi kenn wala ñoom ci seen bopp di yàqaloon bu ñu ko yàq bu ñu bàyyi kenn di ko yàq nan lañ ko yàqee wala bàyyi kenn di ko yàq muy wax nit ñi lu sëriñ bi waxul woon wala di nit ñi li sëriñ bi digalul woon wala ñu bàyyi taalibe bi di dem ak ay xadaram di wax lu sëriñ bi waxul woon lan mooy xew jamono jooju day ko jóge fële day jàpp ne sëriñ bi moo waxoon loolu fekk sëriñ bi waxu kon ñaar ñooñu faw ñu dénk leen ñiy wax di song sëriñ si te liiraluñu sëriñ si nañu dem liirali sëriñ si ñiy wax toujours ci turu sëriñ si te xamuñ li sëriñ bi wax wala bëgg mbooloo la nañu arrêté loola ñaar yooyu mooy tax nga gis kuréel yu bëgg a pëccuxoo te Sénégal romb na ko ba tey génnagu ko kon nit ñi dañu nekkoon ñu baax ci jamono soo seetloo sax li andi jaamu xërëm ci suuf dañu lay wax ne ay wudd suwaa yaxuusa wa yaquuq wa nasra boo ngeen di dégg ci quran nit ñu baax la ñu woon doon jaamu yàlla di wéetal borom subhanahu wa taala mais ba ñu demee seeni nit comme teg nii leen nit ñu baax ñu wutaleen ay màndarga pour fàttaliku leen xam ne ci yoonu yàlla lañu nekkoon mais génération yi ca topp nag ñoo xamul li xew dañu fa gis màndarga yooyu jàpp ne ñooñu leneen la ñu woon ñu faf def leen yàlla loolu nett nañu ko ci histoire kon nit ku baax dina fi nekk ginnaawam lëndëm ngir ñi ne ci ginnaawam walla ñi dem ñi xamul kooka kon ñaari kuréel a fi nekk ñu ñaan mbokk yooyu ñu bàyyi xel ci li may wax mooy kuy wax nangay ngay li sëriñ bi wax muy suñu maam El Hadj Malick Sy suñu maam Cheikh Amadou Bamba ak ñeneen dem leen liiri li ñu bind balaa ngeen di wax ci ñoom ñiy song tamit nañu xool lu ñoo ñu bind. ñu ñoo ñu bind ba pare ñu doo a xool parce que bu nekkee ne da ngay déglu ci taalibe bi nga xam ne maîtriser wu li sëriñ bi wax saa waxee da ngay jàpp ne sëriñ bi moo wax loolu te loolu bokkul ci kuy gëstu xam-xam ni muy def kon loolu mooy tax ku nekk dal ba jullit ñi nekk benn parce que tamit l'islam pour nga génn ci nit day jafe te bu ñu dellu mukk ci loolu tuddee ak takfiir xëy génnee nit ci diine gi loolu nañ ko moytu kon dénkaane la yoo xam ne dama ko waxoon naa ko joxe balaa waxtaan yu jeex lu tax maa ngi wax ci tawxiid te ñu bëri ni ñuy nettalee seeni sëriñ boo defu ndànk da ngay jàpp ni sëriñ bi ci bokkaale yàlla la nekkoon ñu bëri ñu ngi song di tontu ñooñu tamit boo defu ndànk dañuy jàpp ne loolu dëgg la te fekk nag lii dëgg mooy balaa ngay waxal nit ki nga liiral ko parce que li mu bind moo gën a wóor parce que léegi nga dégg sëriñ diw wax na nàngam boo demee ca la mu bind daa woroog loola kon ñu ñaan mbokk yi parce que tawxiid gàcc ngalaama ñooñu yàlla yàlla feel ñu leen bu ngeen demee léeg-léeg ñu tuddal la kifaayatu raaxibiin bu alaji Maodo Malick si nga xam ne kii sunna dëgg la doon dundal euh, la doon dund léegi ñu tuddal la masaalikul jinaan nga xam ne sëñ bi xam na kan mooy boromam xam na fu mu jëm ak nit ñi ak yeneen ak yeneen kon mbokk loolu dafa xew ci biir réew mi ma doon ñaan ñu bàyyi ci xel pour dal te di demee xam-xam ba ñu demee ngëm goo xam ne doo ko ràññee nit loo gëm gëm gëm dara jàngal loolu moo tax borom bi jiital ci Quran iqra bismi rabbika maanaam yonent bi kenn gënu ko gëm parce que mooy gis yëf yi direct mais yàlla da ko ko tegal foofu ne ko faw nga jàng nag faw nga jàng ak li nga doon doon yonent li ma yónni Jibril mu wax ak yow yépp faaw nga jàng iqra kooku ñu naan jàngal te borom bee wax moom massement ñun ñi nga xam ne ñun faaw ñu dem ci téere yi kon loolu mu nekkoon dénkaane ma bëgg ko tëjee waxtaane ndax Sénégal mu ngi dem ci benn déviation boo xam ne tey ñu naan la sunnit yaa ngi nii ahlu sunna wa jamaa ngi nii tariqa yaa ngi nii siit yaa ngi nii waa diwa ngi nii te koo ci gis moo moroom yooyu dugg ci jàkk ji kàbbaar kañ nga jullit ñi pëcc noonu yont bi newoon na la tarjiu bu kuffaaran yadribu baadukum riqaaba baad bu leen dellu sama ginnaaw nekk ñu tàqalikoo baatu ku faar foofu dañ ko firee mutafarriqiin bu leen dellu sama ginnaaw weddiwu leen mais da ngeen di tàqalikoo ku nekk di dóor sa ndodd morom kuñ jox jaase nga gor sa morom wala nga éliminer ko loolu xaju fi